Ansar TV gaaw leen gaaw ngeen bés cloche bi su ko defee ngeen doon membre abonné di am en temps réel tous les événements. waaw alhamdulilah di sant yàlla di sant Seexul Xadim ndax euh, bu fekkee ni tey dañu nekk ci dëkkam bi. té suñu borom yalla dogal xeyna talibé señtu way fi nek am ci ñoon dañuy joxe anam bo xamné xeyna deppowul ak euh, li señ bi soxla ci dëkk bi dafa dafa tollok ñu jog ci loolu bu suñu borom yalla dogalé nak señ bi xeyna am ci loxoyum ko téggon mu doon dox xëy na nit ñi tamit am xeebeel ci ñoom ba tax mu yëkkati ko jox ko police bi ak gendarmerie bi pour que ñu dox loolu euh, vraiment ñun dañ koy rafetlu te gis nañ tamit avancement ci fan yi nga xamante ne ñoom ñi ngi def descente wax dëgg yàlla di ñëw ci gox bi fii ci Madiyana bari na lu ñu fi doon gis ñun muy naqari ci di ko jànkonteel loolu lépp suñu borom def na jamono yii nii moom gisatuñu ko fi gisatuñu ko fi wax dëgg yàlla déggatuñu ko fi ñoo ngi fi dox nag heure bu nekk mais wax dëgg na loo xamante ni daal moom commencé na fee lool lool lool ci lu dëppwul woon ak li dëkk bi soxla ñi nga xam ne nag ñoom lañ ko dénk ñoo ngi leen di ñaanal di leen ci encouragé te di leen waxe ne eh, liggéey bi ñu leen dénk nañ fexe ba bu mu doon ak njëlbeen rek na doon loo xam ne luy sax lay doon dañuy gis ne ñaare bu mbir amee rek sa njëlbeen nga rek yëngatu dina am waaye bu doxee tuuti rek mu ne tekk ba mel ne mës am kon lii rek waaye na doon loo xam ne luy continuer doon waaye bu mu doon loo xam ne buñ ko defee weer wu njëkk yi wala ñaari weer yi mel ne mës mësuñoo tere mësuñoo digle loolu moom ñu ngi leen koy dénk te di leen ko bàyyi. ndax ñun dal xamnañ ne ndax man ma ngi ni ma ñaako ba ak jur la yor waye damay teud nelaw ndax heure buñ monté rek sama xel dal yaangi yandur lay ma waaw ma ngi and ak ñom ma ngi nelaw legi bay yandor tu musuma nelaw musuma nelaw musuma sama xel dal police ak gendarmerie dal yalla leen yalla ak seigne touba ak borom dekk bi taxaw japp leen ci liñu bëgg kep ñuy kuñ gis ngay def lu naka sudul loolu tamit suñ ko mënoon dénoncé ba ba nit ñi yëg ko kilifa yi ko war a ko yëg incha allah. bàyyi mees mi bàyyi puus bi te dox ci ndigalul sëñ Touba képp ku ko def de suba ba ca ngoon li nga bëgg ci dëkkam bii di nga ko ci am col gu bon gi baaxul nañ ko bàyyi man nag duma xeesal duma meesu duma sol col gu bon duma poosit ay xef bugguma ko du ko sëñ bi tere daa fekkoon bu du sama bëgg-bëgg. ñu ñun sëfoor si nga xam ne ay gone dañoo dañoo yilif ay gone xale yu ndaw a ndaw ñu yilif leen yàlla def ñoom defuñ dara lu dawal rek la ñuy def yor seen i pièces yu mat sëkk nekk fii ci garage bi bu ñu sañoon tamit ñu di ñu dimbale maam maam yow a ah di ñu rus ñoom ba képp kuñ ci fekkelu lenn lu ñuy aaye. nga yor say pièces na mat na mat ñu bañ laa sonal bañ ñoo sonal ñun ñii di seen i jëwriñ loolu ñun dañ koy sakku di ko ñaan commandant di ko ñaan commissaire di ko ñaan ñëpp ñi nga xamante ne si ñoom la sëñ bi teg mbir mi seen loxo. Euh, day dugg ci biir transport bi ci lu ci bokkul. ndax comme oto yi ñu ngi daw te nit kenn ku nekk yaay yor oto yi te lu nekk mën naa dugg ci oto ba jaar ba jaaree fa dem raw te du fekk méngoo naak li dëkk bi soxla euh, dafa tolloog ñuy saytu oto yi di leen di di xool biir oto yëpp di contrôler contrôle bu sévère ci ñoom ba nga xamante ni euh, lépp loo xamante ni ku teguwul ci yoon ngi ci ñu mën ko teg loxo loolu moom ñun ñi nga xam ñoo ngi yëngu ci wàllu transport dañ ciy kontaan lool di ci bëgg ndax euh, suñu sañoon suñu métier mii métier noble la te métier noble boobu dañuy bu nu sañoon loxo bu set rek moo ciy nekk kon loxo yi nga xamante ni ñooy loxo yu taq yi ci nekk bu ñu sañoon suñu borom ñu teg leen loxo ba ñu xam ne ñii kat ñi bokkul ci métier mi la. yëkkati lépp teg ko si diggante loxoy police ak loxoy gendarmerie génn si safanatul amaan génn si yeneen kuréel yi fi nekkoon lépp ngir bëgg jàmm. jàmm jooju nag ñun ñu ngi siy ànd ak moom bu baax a baax a baax di ko ñaanal mu yàgg lool yàgg ko digle. Ansar TV gaaw leen gaaw ngeen bës cloche bi su ko defee ngeen doon membre abonné di am en temps réel tous les événements.